en France nous devons faire carte de presse. Mhm. pour apporter plus de privilèges aux journalistes. parce que c'est les journalistes qui donnent les informations. carte de presse c'est lan pour logement nous avons Une carte de presse lan a pour lui faciliter ses déplacements carte de PSM lan la woon bu vous dafa am ay missions yu mu vous couvrir à l'extérieur, vous buy le vol bu a une situation lambda bi 1500 nga fay 750 lay fay. mais loolu pas nekkoon carte mhm. de presse. mais mhm. ici au Sénégal carte de presse tey jii yow tey jii Idrissa Fall bu ñu ko jàppoon ni ko am sa carte de presse amu carte de presse ñu à ko parce qu'il n'est pas journaliste. mais celui qui est un exemple. koo xamante a dafa dem ba docteur en journalisme. Mhm. dem n'est enseigner nekkatul sax journaliste mais day jàngal ay journaliste day wax benn mot boo xamante ne amaana ça déplaît l'État ñu arrêté ko suba am sa carte de presse aw ma carte de presse ñu jàpp la. mais kooku kan moo ko mën a génnee si si si si domaine journalisme. donc euh, c'est des c'est des choses yoo xamante ne aussi euh, dañ koy jàllale waale rek parce que nous sommes en sursis. pare Barki dem on avait un confrère bi nekk Sénégal. Euh, arrêté woon nañ ko mais relâché waat nañ ko donc je pense que c'est une très bonne chose aussi. xool non, ngi noonu dafa nekk loo xamante ne dafa daw yaram. Mhm. dafa doy waat parce que journaliste man dama jàpp ne dañ ko war protéger. Mhm. même boo xoolee euh, récent manifestation yi euh, boo xoolee Mahmoud nous les journalistes dañoo sonn. surtout journal yi nga xam ne dañuy sur le terrain manifestation yow tey nga dee. Mhm. parce que force de l'ordre yi dañ ñett lay doon ñetti équipe. on gaz hein ñi ngi noonu population fii <laughs> force de l'ordre fee journal yi fële seen yoon nekku si xeer da lay dal lacrymogène da lay dal kon donc tu n'es pas en sécurité moo tax à chaque fois léegi boo xoolee euh, euh, chaque euh, da ngay gis benn journaliste boo xamante ni dañ ko hospitalisé dafa reçu dafa jot bal mm-hmm. mais depuis quand ban monde lañ nekk mm-hmm. ban Sénégal lañ nekk kon donc man je pense que ni il faut revoir les choses de clair mais tamit il faut que tamit ñu defaraat mbiri bien vrai que euh, transition c'est bientôt c'est pour bientôt sans lan euh, changer li nga euh, président mais tu mhm. tey dit, interrogation mom moté mais en commençant par la transparence voilà qui sera notre futur président mhm. mais dans un dans un état démocratique pour base bi moy la transparence ouais transparence moy il mhm. y a des choses qui xam très buy dugg ak buy génn dafa parce que nous avons droit à l'information effectivement nous avons droit à l'information étant citoyen nous avons droit à l'information comme donc la trans la transparence moom parce que la moy gis nga euh, yenn problème yu bari la moko andi. Mhm. di neub di neub zéro transparence ba mu si loxo ko xamanteni amana peut-être mën nga warul tok si loxo il passe la l'information mhm. donc information bu xasse ba passer rek moy lan ça fait l'unanimité ñepp a jot te képp ku ci jot rek am nga sa point de vue des points de vue différents mais mhm. tamit képp ko xamanteni rek jot nga ci di nga ci euh, waslu ak effectivement mu nek ay jangat yo xamné idi defal nga ñuko mu am solo trop trop trop donc je pense que nous allons passer à la revue des titres mhm. hein donc euh, ñu jëm ci revue titres yi euh, commencer par euh, l'observateur Mom un dernier virage dangereux donc l'ange crucial d'une nouvelle équipe pour terminer le mandat et accompagner le candidat de Beno. donc nous avons encore une fois le président le président Sall Warnoko Yekati, mhm. concernant le choix de nga Waradef sur les échéances de 2024 bon nous est-ce que n'est pas Amadou mhm. qui est en train d'être dans une politique pour euh, vraiment ça se confirme. Mhm. Abdoulaye Daouda Diallo nous avons aussi cité Alingoui, Ngouille qu'est-ce à qui il faut s'attendre réellement waaw gis nga euh, côté boobu noonu. Mhm. man je pense que ni dilemme bi nga xamante ni moom la président Macky Sall ne instant bi dafa gën a nekk ci problème. Mhm. parce que imaginer nga am quatre personnes yoo xamante ni ils sont tous susceptibles d'être des présidents. oui à qui choisir. mais ak tamit euh, pour man. Mhm. dafa accorder plus de responsabilité à Amadou Ba. ak poste yi nga xamante ni jox nañ ko premier ministre et autres te gis nañ tamit Amadou Ba il paraît que imam, il a pris sa propre semée récemment tourné mhm. il a attiré beaucoup de monde. Mhm. le lendemain il a été euh, partout dans les une des journaux kon donc moom mi ngi mi ngi mi ngi def sa politique. Mhm. Euh, mais mais concernant concernant politique bi ngay wax nii on avait vu quelque temps si ginnaaw. Mhm. Euh, fële nga xam ne moom mooy siège APR. Mhm. moom ak euh, moom moo fa nekkoon doon yëkkati discours ak Abdoulaye Diouf Sarr. ba amoon na fa sax ay bagarre yoo xam ne noté woon nañ ko. donc tey jii suñ ko gisee muy nekk di dem ci stade yi sur les sorties. est-ce que nekkul woon li nga xam ne moom mooy une confirmation concernant sa candidature. waaw gis nga boo xoolee depuis li nga xam ne moom mooy élection qui euh, nous élection mairie. Mhm. bataille parce que euh, bon non euh, surtout Parcelles il y avait côté Benno yakar il y avait APR autant pour moi presque on peut dire ben la. il y avait il y avait Amadou Ba et Moussa si mhm. foofu non parcelle ñep ñi ngi doon xaar à ce que Amadou Ba déposer candidat pour nek jël mairie mais sur ordre du président de la République. Amadou Ba moom moo couvrir euh, képp koo xamante ni rek euh, moom moo accompagner képp koo xamante ni rek candidat nga au maire. Mhm. Euh, après à sa place ah, Moussa si moom moo ñëwoon à sa place pour nekk maire Parcelles Assainies moom moo déposé waatoon candidature. Mhm. depuis lors dama def benn constat Amadou Ba il fait le tour. moom mooy dem fépp. moom mooy dox lépp loo xamante ne rek moom mooy safee moom mooy def tournée yi moom mooy def te boo xoolee c'est le plus vu moom moo gëna nek en activité euh, par rapport à Abdoulaye euh, Daouda ak euh, ainsi d'autres. j'ai l'habitude de dire dans sa perspective le président Sall Suitan il faut que mu choisir ko il sera capable peut-être de diriger ce pays-là. on se dirige vers des élections mais l'Union l'air, moi, je suy suy dina tan ko peut-être il aura les capacités encore une fois à être un très bon candidat. mais instant on est à quelques mois. Mhm. on est à 4 mois 5 mois. est-ce que mhm. est pour élection élections. Jusqu'à présent, euh, le président de la République Monogoul def son choix. Ça cause problème. Et c'est le grand débat, en fait. C'est le grand débat. Donc, le euh, euh, problème bi est-ce que mhm. entente amna digënté APR ak Benno Bokk ah. Parce que si toutefois le président de la République fait un mauvais choix. Parce que ak mhm. Ça sera un mauvais choix pour certains. Si toutefois dañoo dem ba nga qui ni kat ñoom ñëpp bokk même même même même même même même groupe mais jubóowuñ. Mhm. boo xoolee parce que boo gisee biir da fay dégg ay ay ay dysfonctionnement mhm. kon donc na comme ni ko dama mais c'est ni président de la république a mais tamit mhm. euh, pour mu def man dina lu difficile mais qui pour prendre le relais mais tamit avant ça tamit est-ce que population bi pare pour euh, engagé ou sur sur le même régime parce que si toutefois il y a un régime qui xamanteni ben continuité lay celui qui succédera Macky Sall est-ce que même politique lay aborder est-ce qu'il va changer de politique mais tamit on attend ak surtout aussi il ne faut pas sortir ki nga xam Ousmane Sonko euh, dans cette bataille là et que man dama ne que euh, ces élections la lutte se fera avec Ousmane Sonko au moment où man man sa candidature concernant sa candidature il y a mm-hmm. pas de problème mm-hmm. il est juridiquement et librement éligible il faut le dire moo euh, à chaque fois damay déglu yenn nit ñi pour man dañuy jum mm-hmm. intervention oui le fait qu'ils veulent éliminer Ousmane Sonko définitivement. Alors qu'il est toujours candidat. Bien vrai qu'il est en prison. Mais ñan durée validation. le conseil constitutionnel mais le conseil constitutionnel il n'a pas encore tranché. effectivement jusqu'à présent donc euh, ñi nga euh, exemple pour l'instant. on mën nañ pile de 10 personnes pile de 20 personnes qui ont déposé dañ candidature annoncé officiellement. alors que le conseil constitutionnel n'a pas encore tranché. et il y a le problème des parrainages aussi. mais non les parrainage a une haute importance. daf euh, on peut dire que du côté parrainage Ousmane Sonko mën sens. parce que foofu noonu côté boobu noonu moom moom euh, il sera favorable au parrainage. oui quoi qu'on puisse dire mais imaginez sénégalais yi ñëpp bëgg éliminer Ousmane Sonko euh, te. élection il mais pour man euh, il n'a pas de problème avec sa candidature. évidemment parce que même si tu entends les juristes quand ils t'expliquent sur li nga de ne contre il faut retourner encore une fois en l'arrière. et que l'ol non xaju fifi ak 2024. on a vu ce qui s'est passé avec euh, Nelson Mandela ñaata tuuma mom lañ tek ci kawam. biñ ko emprisonné si la gagné après tey ji euh, gis nañu ce qui s'est passé donc mu nek ay jangat yo xam amna solo nous allons continuer avec li nga la tribune ñom ñu ngi wax les pratiques mystiques. au cœur des catastrophes donc gis nañ ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy jël gaal yi moom daanaka boo yu bëri dañ la naan non foog ñu dugg si àll bi ba pare defar li nga xam ne moom mooy suñu yaram ban jàngat ngay def aussi si wàllu boobu waa gis nga mi ngi noonu man mhm. yaakaar naa war nañ yeewu si loolu tamit si parce que euh, imaginel ñun ñëpp wala ñoom ñëpp dem nañ uti seeni euh, matuwaay mhm. te doo egg Mhm. wala majorité bi euh, dañuy ñàkk seen bakkan wala majorité bi tamit dañuy mujj obligé ñibbisiwaat euh, fii seen réew. Mhm. kon donc euh, yaakaar naa comme li ma doon wax sànq rek. y a trop d'argent gassé. xaalis bi war nañ jàpp jàpp naa ni si toutefois on a du mal à le mettre là où il faut ça pose problème donc si bu fekkee da nga nar a pare pour génn réew mi rek jaral na la mais mystique boobu kay nee ko mu ñaanal la nga am visa. ku la mën a ñaanal kay mystique sécurisé la ba nga xamante ni di nga mën jël gaal gi. ba pourtant gars yi gëm nañ ko hein, affaire mystique bi nii dañ ko gëm dañ ko gëm mais euh, mystique fii nii yow d'habitude euh, ñoom lan la ñuy wax ku ku ku ku ragal xarfa fa xuufa xar fa xuufa xaw ma nuñ koy waxatee. moo boobu noonu. kon dafa nekk loo xamante ni euh, surtout côté mystique. dafa am benn ampleur boo xamante ni dafa am fii nii si Sénégal maam. que ça soit muy muy côté immigration et autres mais dafa nekk loo xamante ni dafa am haute importance. et ils mhm. font l'affaire des je pense comme ma sëriñ je ne sais pas. mais bien sûr. mais ils font ils font leur affaire. je vais pas dire Serigne ça, mais charlatan. au fait parce que quand xam ne man jàpp naa que Serigne, nga doo def loo xam ne. tey jii xamoo ndax na wala la. et que ñun nous savons que la dernière décision revient. Mm-hmm au oh, bon Dieu donc tey jii euh, ñoom aussi man arnaque sax mon la koy tujjee parce que nit jàkkaarloo ak yow ne la garantie naa que di nga jël Espagne loolu ay charles donc il doit y avoir li nga xam ne moom le réveil de la conscience euh, sur une partie de cette jeunesse là donc nous allons ñi ngi gis tamit ñu que Youssou Ndour euh, reprend sa liberté d'action et prépare li nga xam ne moom une grande offensive Youssou Ndour est-ce que day candidat donc les les échos ñoom ñooy wax loolu noonu idi waaw maa ngi koy maa ngi koy gis. ak mhm. di rafetlu tamit euh, mosoo dégg problème diggante Youssou ak le président Sall. Mhm. et pourtant je pense y' a plus de douze ans de cohabitation. Mhm. ñoom ñaar kon donc c'est quelque chose à saluer. waaw Youssou Ndour man yaakaar naa instant bii nii surtout euh, projet yi nga xamante ni récemment moom la lancé. surtout politique euh, bi nga xamante ni moom la nekk di def mooy lan l' insertion des jeunes mais de sa propre politique xaarul état si dara mais il fait ça il fait euh, son propre entrepreneuriat diapo les NSP. man mom dama saluer ci côté man euh, je ne pense pas que ni euh, il est le candidat préféré pour reconnaître un potentiel président voilà ou autre mais man j'aurais suggéré qu'il continue sa politique de faire moi li créer sa propre entreprise créer euh, li nga xamante moom mooy euh, l'emploi des jeunes. Mhm. gën a jàppale jeunesse bi. mais il fait quelque chose loo xamante ne amaana ñu bëri buñ buñ sañoon dañ koy am. mais moom dafa mel ni politique bi xaw na ternir tuuti li nga xam ne moom mooy image am. si évidemment gisoo biñ ko fi joxee poste dafa wàññi lu bëri si si dayoom. effectivement dafa wàññi lu bëri bëri bëri bëri si euh, Youssou Ndour parce que liñ liñ ko xamee woon mooy il était le centre du le centre du peuple. moom mooy borom trois générations yi. woyal na ñëpp donc euh, fépp ñëpp fa lañ ko un moom dafa icône. légende parce que politique. donc sa prise de position moo voilà parce que xam la sur le politique mm. problème bi. Mm-hmm. exemple benn euh, exemple euh, excuse du terme mais boo jëloon sa benn généraux mooy suñu suñu confrères yi. Mm-hmm. fi nga boole ko benn parti politique. Mhm. am na ñeneen ñu ko bañ. Mhm. parce que politique moo mel noonu. oui ñëpp ñu la bëgg. kon donc Youssou Ndour dafa nekkoon koo xamante ni Sénégal ñëpp dañ ko bëgg. Mhm. mais si toutefois il commence à prendre parti ñenn ñi il vont se démarquer de lui. parce que dañ naan Youssou Ndour bett nañu xaar ñu woon moom si lii. te surtout nag liggéeyal état dafa nekk loo xamante ni dafa metti et dafa bëri ay risques kon donc man moom euh, recul bi nga xamante ni jël na ko man dama ko si euh, félicité mais tam dama koy euh, conseiller rek à ce que mu continuer si politique bi nga xamante ne moom la nekkoon mooy lan euh, insertion bi entrepreneuriat jàppale jeunes effectivement mu nekk jàngat yu am solo nous allons continuer avec le journal l'info ñoom ñi ngi titré Sonko entre li nga xam ne moom mooy les stades donc comme niñ ko gisee aujourd'hui un match a été interrompu au stade Amadou bari hein, ah mm-hmm. hein, de Guédiawaye mm-hmm. parce que ñi ngi doon way li nga xam ne moom mooy Sonko nam nañu la ak aussi gis nañ ne que cave de Vélingara ñom génne nañu benn communiqué doon alerter sur champ yi nga xamné ñing koy def euh, ci stade yi